Euh, salaamaaleykum du bari Gassama membre du collectif Colobane laa dëkk. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui par rapport à euh, tout d'abord je voudrais rappeler l'historique de la création de cette de ce collectif. C'est un collectif qui a, qui été créé à la suite d'événements malheureux. Euh, si vous suivez bien l'actualité, depuis un certain nombre de mois, la population de Colobane s'est levée, s'est mobilisée pour réclamer en cadre de vie. il y a eu un accident ou il y a eu mort parce que tout simplement, les voies dédiées aux, euh, aux marcheurs étaient occupées. Nous avons utilisé tous les moyens légaux, parce que nous nous sommes dit que nous sommes des légalistes. Nous pouvions faire comme les autres, comme ça se passe ailleurs, mobiliser et faire avec ou sans autorisation. Mais nous avons voulu être légalistes. Nous avons écrit à toutes les autorités, centrales et locales, pour leur demander de désencombrer pour nous permettre d'avoir un cadre de vie. Car il faut le rappeler, le quartier Coloban créé vers les années 1939 est un quartier résidentiel et non un quartier commercial. Le marché a une délimitation bien précise. Mais vous constatez ce qui nous a réunis ici aujourd'hui. école, tout, au, le long du, du mur d'une école l'école Moustapha Sissé, vous par la rue centrale, vous ne pouvez pas voir l'école. De nord au sud, l'est à l'ouest, l'école est occupée. C'était la seule bouffée d'oxygène de cette école. Et aujourd'hui, avec la complicité de la mairie, nous avons commencé à ériger un deuxième palier. le maire. Le maire est responsable parce qu'aucun commerçant, aucun marchand ne peut se permettre de faire ça sans l'autorisation du maire. Donc ça, c'est de la responsabilité entière du maire. Alors que nous avions entamé des étapes de désencombrement. Il y a eu des heures. Le Premier ministre s'est déplacé. On nous a demandé d'arrêter le temps de trouver des solutions pour reprendre. Et malheureusement, voilà ce qui nous arrive. Il continue à encombrer. Toutes les voiries qui ont été désencombrées ont été occupées encore. Et on dit que toujours, soyez légalistes. Il est arrivé à un temps où on ne peut plus retenir la population. Et nous allons vers des, affront des confrontations, vers des affrontements. Et ce sera désolant. Et il y aura la responsabilité des autorités centrales, mais aussi il y aura la responsabilité du maire. que vous avez contacté le maire pour avoir Mais pour dire qu'une commission ad hoc a été créée, pendant un mois et demi, les gens ont tenu des réunions avec des commerçants, les riverains et la mairie. pour régler ce problème. C'est à la suite de ces réunions que les commerçants eux-mêmes, parce qu'il y a une grande partie des commerçants qui sont contre ces occupations en Afrique, ce sont les commerçants qui ont choisi les premières dates de désencombrement. Nous avons commencé les, encombrements, les désencombrements, il n'y a eu aucun problème. Mais malheureusement, les autorités nous demandent d'arrêter parce qu'il y avait un mouvement d'humeur de quelques tabliers qui sans aucun droit se permettent de dire qu'ils vont occuper les voiries, qu'ils vont occuper l'école. Nous, avons évité les confrontations, nous avons demandé à nos jeunes de se calmer et d'attendre que les autorités donnent une suite à ce combat. Mais les jeunes ont eu raison sur nous aujourd'hui. Parce qu'ils ne cessent de nous dire que, grand, tant que vous êtes là à faire de la diplomatie, ils continueront à laisser Coloban à la merci de, de, de, de ces commerçants. Et vraiment, malheureusement, c'est ce Regardez, vous pouvez constater par vous-même, il a une école d'excellence qui fait les meilleurs résultats au niveau de l'Académie de Dakar. Et euh, ils se permettent encore de diriger un deuxième palier. Et il paraît que même au niveau du marché, où il y a un état dégradé, l'état dégradé, ils se permettent de mettre euh, un deuxième palier sous le prétexte que ce sont euh, du matériel léger. Mais c'est faux. Si vous construisez avec du matériel léger et que vous mettez là-bas des marchandises qui pèsent des tonnes, il faut que les autorités arrêtent. Il faut qu'ils respectent la population de Colobane. Ce que nous leur demandons, c'est notre droit le plus absolu. Nous demandons un cadre de vie. Le marché se limite là où il doit être, le quartier résidentiel. Mais on ne peut pas vivre à Colobane. Euh, difficile d'accéder à l'hôpital, difficile aux populations riveraines de se déplacer. Même il y a une veille d'âme. Je vais donner une histoire qui jusqu'à présent Non, c'est une vieille dame qui ne peut pas se déplacer. Mais le taxi ne peut pas arriver jusque chez elle. Donc, sa famille est obligée de payer un médecin qui fait le déplacement. Et vous trouvez ça normal Merci. Voilà. Euh, euh, collectif euh, Colobane laa dëkk. waaw non lu ñuy ñaawlu euh, vraiment mooy euh, du du ci marché bi d'abord mais dañuy wax ci quartier bi ak euh, ci la mairie parce que aussi am na loo xamante ne dañu préparer woon une opération de déguerpissement bind autorités yi waxtaan ak ñoom wax ak ñoom que ne dañu bëgg vraiment ñu désencombrer quartier bi malheureusement bi ñu désencombrer quartier bi ba léegi ñu doon xaar mu ñu doon xaar mu am suite bu favorable ci population yi mais toujours dañu gis ne autorités yi dafa mel ni euh, dañuy topp caprice u euh, commerce bi wala caprice u yenn commerçant yi du ñu wax ñëpp parce que bëri na ci commerçant yooyu ñoo xamante ne vraiment euh, occupation anarchique bi neexu leen léegi nag ñun li ñu li ñu comprendre en tant que en tant que riverain du quartier parce que dañu gis ne école Moustapha Cissé nga xamante ne comme ni ko monsieur le maire Gassama waxee que ne école d'excellence la boo rombee doo mën a xam ne sax lii école la ñu dem ci premier ministre bi désencombrement bi amee mu recevoir ñu primature bi ñu ñëwee lim ñu wax mooy mënul concevoir école ak euh, hôpital mu am lieu de commerce ba dañ ko war a désencombrer lu mu gaaw gaaw gaaw mu gestu jox instruction euh, ministre de l' intérieur que ne nañu désencombrer yooyu ñu xëyaat ñuy teg extension ci ci euh, ci fi mu wax ne nañ ko désencombrer kon c' est parce que autorités dafa mel ne dañuy wax Colobane noppi leen mais au finish ñoom ñi ngi def leneen li nga xamante ne ñoom loolu la ñu def ñun nag Colobane li ñu wax mooy du ñu teggi suñu tànk ñu daw parce que ki ñu waroon waxal waxal waxal nañoo ñoom les autorités étatique wax nañoo ak ñoom les autorités territoriales wax nañook ñoom les autorités communales wax nañoo ñoom xam nga bu fekkoon jaaruñu foofu noonu yëpp jaar amul fenn foo xamante ne jaaruñu fa wax ak ñoom ba lu ñu kii mais bu ñu gisee ne chaque jour affaire bi dafay gën a yokk ñun na Colobane dañu ne loolu jeex na parce que mu ñu toog war am cadre de vie bu normal comme ni ko autorités yi amee kenn si ñoom nanguwul sa doom dëkk ci marché kenn ci ñoom nanguwul sa doom di fréquenter marché ñu jël Colobane laissé ñu en rade bàyyi ñoo euh, commerçant marchand tablier yi Euh, ñu envahir quartier bi maire bi fi nekk ñuy demander nag colonel Colobane ñu ngi demander solennellement que Aziz Abdou Aziz Paye na autorité étatique yi jël seen responsabilité ñu euh, ñu jëlee ko fi ñu ngi demande à ce que délégation spéciale ñu jëlee ñu jëlee fi Abdou Aziz Paye parce que amul njëriñ pour suñu commune depuis deux ou depuis deux ou trois ans Abdou Aziz pay mu ngi nekk ci commune bi dem leen ba ci ñoom posé nañ leen question boobu ñun waa Colobane ñu posé leen ne leen depuis seen reñ ba trois ans yii nii lan ngeen def à Colobane ñoom si jëm seen jëmm bopp mënuñu ko expliquer il a fallu que ñun ñu booster buste leen état central génne seen communiqué pour que ñu désencombrer ñoom ñu door a mën a taxaw pour que désencombrer le 6 bii passé ñu jël jël voie publique bi ñun ñu Colobane ñu amoon initiative pour ne kat c'est le journée président de la république la moom moo woote reboisement ñu war a woote reboisement sunu autorité territoriale yi nañu bàyyi leen lan moo tax parce que ay comp ay caprice su euh, les tabliers ñun Colobane ñu ne bàyyi nañ parce que journée président de la république ñun ñu amoon 300 pieds d'arbre yoo xamante ne waroon nañ ko mën a implanter munuñ munuñ mujj ñu ko planter lan moo tax loolu parce que autorités yi ñoom ñu ne ñoo ñu ne bàyyi leen ñu toog seetaan autorité centrale muy parce que kan kan moo ñu wax kii defe naa le préfet moom moo woote personnellement que opération boobu noonu ngeen di arrêté ngeen def mun ngeen ko ak le sous-préfet. waa mairie bi ñoom ñu déplacé wu wax ñu ñu ñun waa Colobane que ne opération de dégâts de reboisement bi ngeen préparé woon nañ ko sursoir parce que autorités yi nee nañ nañ ko sursoir ñun Colobane ñu am 300 pieds d'arbre boo xamante ne ñoom xam nañ fan lañ ko jëlee ñun ñu dem lijjante ba am 300 pieds d'arbre pour accompagner l'État ci ci ci seen euh, ci liggéey boobu ñu ne ñu sursoir leen loolu tey 300 pieds d'arbre mi ngi noonu yàqu na. ndax lan ndax ay caprice euh, marchand tablier am na loo xamante ni ñun duñ ko nangu état yi nañ jël seen responsabilité parce que lépp lu xaw xew à Colobane ñoom nañu xam ne ñoom ñooy premier responsable fi ñu waroon jaar nag jaar nañ fa ñi ñu waroon waxal wax nañoo ñoom tey nag mënuñu ñu dëkk si chaque jour di ñu wax naan noonu noppi leen noppi leen noppi leen lu ñu bëgg état bi nañu noppi leen léegi ñu toog di kii parce que lan ay légaliste lañ ñoom ñu bëgg sukkandiku ci ne ah, ah jeune woo Colobane comme ay légaliste la ñoom ñoo ko woote léegi nañ leen ñu leen teg nañ leen ko tegoo dootuñu ko nangu dañuy wax ne extension bii nii ñu teg ci école Moustapha Cissé ak buntu école Moustapha Cissé exigence la pour que ñu ne wax euh, premier ministre moom mi nga xamante ne moo ñu waxoon. ne ñu na and ak tolérance ñun lu ñu koy wax mooy mënul ànd ak tolérance ci loo xamante ne décret 76 018 du 6 janvier 1976 réglementant la vente sur la voie et dans les lieux si article 4 bi dafa wax ne képp ku bëgg nekk marchand tablier dangay dem uti carte professionnelle te ministre du commerce moom moo la ko war a jox jaarale ko ci gouverneur foofu tudd euh, article beeg décret bi tuddul tuddul préfet tuddul sous préfet mais lan moo tax autorité bi nañu léegi yéen waa Colobane ànd leen ak tolérance ba pare dëgg la bëgg nañu ànd ak tolérance na na nañu ñoom nañu euh, kii abrogé boobu décret non du question de en cas de état li ñuy wax ñun nekkuñu fi pour di xeex ak état wala di xuloo ak état dafa am loo xamante ne c'est notre droit le plus absolu dañuy dem pour jëli ko parce que moom président de la république mu ngi dugal ay njabootam foo xamante ne fan la dëkkoon du Mermoz si euh, première ministre fan la dëkk du Sénégal góor gi comprendre nga kon ñoom noonu cadre boobu noonu baax na ñoom seen cadre baax na léegi pourquoi ñun suñu commune Gueule Tapée Fass Colobane ñun ñu bëgg ñu ñu désencombré ñu kii toujours autorité administrative ak autorité euh, étatique yi naan ñoon bàyyi leen toog leen seetaan kii ba pare suñu cadre di gën a yàqu usage d'habitation yi am à Colobane ñu koy transformé en commercial nga koy signalé autorité yi tu am benn suite léegi lan la ñu bëgg ñun ko population bi ñu bëgg kii li ñuy wax daal ne mooy ne état jël ay responsabilités par rapport ak li xew na suñu autorité administrative yi jël ay responsabilités par rapport par rapport ak li xew di fàttali premier ministre que ñun dem man bokkoon naa ci ñu demoon toog ak moom mu gestu jox instruction ministre de l' intérieur que ne désencombré rue wu Colobane muy école Moustapha Cissé ak euh, hôpital Al boobu ba léegi amul amul ñu ngi koy ñu ngi toog di ko xaar gisuñu ci kii ñu ngi wax nag ne. toog di xaar bu yàgg bii nii dootuñu ko nangu am na loo xamante ne mënuñu toog di nangu ñoo xamante ne dañuy ñëw fekk ñu si sunu ñu war a dund am cadre de vie bu baax nga ñëw imposer ma yow li nga bëgg ba pare samay autorité euh, étatique man ak yow ñu bokk ci même euh, niveau ñu ñu ne ma noppi pour man ma war a noppi ndax seen comp euh, ndax seen kii loolu lañ wax kolobaan dootul nangu li ñuy def mooy dañuy taxaw à ce lu kolobaan bu war a war war a jot comme moomeel dinañ ko jot parce que amul am na loo xamante ne place de la nation dañu ñëw implanté ko ci sunu quartier caserne Samba Diéry Diallo ñu ñëw indi ko fi camp Abdou Diassé ñu indi ko fi Masalikul Jinaan ñu indi ko fi mu am euh, terre am BRT lépp Colobane on est ba léegi loolu noonu yëpp ñu jàpp ne état dinañu accompagner ñu noppi garage bi euh, garage euh, Colobane mi ngi fii ñu jàpp ne état Colobane dina dinañ noppi ñu toog di xaar marché wu neuf hectares ñu ñëw si sunu biir quartier mu am fi muy déplacé wu toujours ñu non am na loo xamante ne trop c'est trop dafa jeex état yi suñu autorité étatique yi ñu jël seen responsabilité par rapport ak Colobane kolobaan nag bu ñu jugee ñoom na ñu xam ne ñoom ñooy les principaux responsables. voilà jërëjëf. Abdou Gueye coordonnateur collectif euh, Colobane laa dëkk.